Ucab FM. li gën a fës ci yéenekaay yi. Papa Saer simila Aminata Touré mi ñu wàccee ci député bi mu nekkoon ci assemblée nationale yéen kaay yu moom la ñu xëy kenn ku ci ne dañu ci nett sunu naataango xëy di xamal ne Aminata Touré mi nga xamal rek moo jiite woon campagne ba ci jamono ji nga xam ne ko ñi ngi sàkku député yi Aminata Touré l'info yéen kay xëy di xamal ne mu nekkoon député ca pencum ndaw réew ma ñàkk na ndomba tànk googalee bureau bu assemblée nationale woote nanu ba woote ngir rek tekki li nga xam ne moo di ndomba tànkam mbir ma jàll na yéen kaay xamal ne kay mbooleem ñi nga xam ne kay nekkoon nañ ci ay kàngam ci nguuru Sénégal te nag jóg di defante ak ñoom fi mu mbir mi tàmbali na di wax xàtt ci ñoom yéen kaay bi xëy di xamal ne Aminata Touré mi mi ba seen càkkuteef gi mën a antu ndax nag fayu nañu ci kaw kii di mimi député yi nekk ci coalition wàllu Sénégal yéenekaay bi xëy di xamal ne lool mbégte li nga xam ne kon moom moo di euh, seen dogal bi nga xam ne kon jël nañu ko ko ca pencum ndaw réew ma mimi bi xëy di xamal ne jamono ji nga xam ne kon nekkoon na ministre de la justice moom nag la mu jëfoon ci Karim Wade dafa mel ne ba léegi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa parti démocratique sénégalais mënuñu ko wanaasu ba fi mu toll ni yéenekaay bi xëy di xamle ne tëj gi nga xam ne kon tëjoon nañu ko kii di Karim Karim Wade ba tax naka ba ñu ko génnee sax kaso yóbbu ko ca Qatar boobaak léegi ñëwaatul yéene kaay bi moo xëy di nit ñu nettali rek ne waa parti démocratique sénégalais mënuñoo wanaasu lu mel ne lépp rek Mimi Touré lañu ko gaale ci kawam laas yéene kaay xëy naka di xamle rek ne waa parti démocratique sénégalais jël nañ seenuk fayu di revanche boo xam ne kon jël nañu ko ci kaw Aminata Touré di Mimi yéene kaay bi di xamle rek ne kon jël nañu ko bu du woon loxo waa parti démocratique sénégalais waa APR ak ñoo ñu àndal bi dana jafe lool ngir mu antu ndax nga xam ne ko ñoo di yeneen lànkaloon def ba tëdd ca naajo yéenekaay bi di laas ba tey ma ca di xam ne njiital APR doon président Macky Sall taxawaayam leer na nañ lépp loo xam ne rek nekk na ci lu koy gàllankoor aw yoonam mu faxas la nga abal bi xam le rek ne Mimi Touré de weddi lu ne mel Amadou Mame Diop mi moom la ñu jox muy dawal lii di bulldozer bi lu mu jaar ci kawam rek rajaxe ko jàll su naataango di xam le ne mbooleem koo xam ne rek bëgg nga am taw féex ci Benno Bokk Yaakaar ak ñooñu àndal fexeel rek ba lépp lu njiitu réew mi wax nga ne gongo lu ni mooy rek da nga gis lu weex xatt ci li nga xam ne kon moom di saw doxalin yéenekaay bi di xam ne ne règlement intérieur bu assemblée nationale li nga xam ne kon moom lañ dox Sud Quotidien moo xëy di xamal rek ne nappaajan nañ ca lu bëre bëri ci aw doxalinam ci li nga xam ne kon moom lañ jëfee ci mbirum Aminata Touré dogal bi nga xam ne kon moom lañu jël ci kaw ki nga xam moom fi nekkoon tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ci jongante législative yi fanweer ak benn fan ci weeru sule daanaka boo koy xool nag la ca ëpp rek sàmmontewul dara ak règlement intérieur bi nga xam ne kon moom lañ def ca pencum ndaw réew ma yéenekaay bi moo xëy di xamal rek ne ci doole bi nga xam ne kon moom lañ ko defee nag noo sukkandiku ci doole wàllu Sénégal Benno Bokk Yaakaar fi mu toll nii ne ci biir tweet bi nga xam ne kon moom ko moom moom moo di leneen lu ca jaar yoon lépp rek danoo salfaañi li nga kon moom moo yoonu réew mi moo tax rek ñu def lu ni mel tax nag jublu ci lenn rek lu dul li nga xam ne kon moom moo ab gis-gisam ñu bëgg koo fànq ne nag troisième mandat bi nga xam ne kon yàgg naa wax ne du fi am loolee tey jii la ko gën a wax ne nag du ngor moo koy maye du yoon moo koy maye Aminata Touré di xam kaay bi xëy di xamal ne li nga ñu bëree bëri fi mu ni bettu leen ba tey yéen kaay bi xëy rek di dellusiwaat ci anam bi nga xam ne kon moom bokk ci doxey ni nekk ci bureau assemblée nationale bi ñoom nag daanaka dañ leen rek convoqué d'urgence maanaam woote bu jàpp boo xam ne kon woo nañ leen bu xibaar boobu le député yi ñu woowoon daanaka lañ leen doo wooye xamuñu ci woon dara ndax nag amuloon benn ordre du jour ba ñu dikkee rek lañ leen xamal nag ne mbirum Aminata Touré lañ leen di wooye yéenekaay bi di enquête koy nettali député Mamadou Lamine Diallo bokk ci groupe parlementaire wàllu Sénégal xamante ne mukk nanguwuñu benn yoon ñuy génne ki nga xam ne kon moom di Aminata Touré yéene kaay bi di Vox Populi moo ñu nettali ay kàddoo moom nag muy xam la rek jamono ji daanaka mënoon wax fitna la ñu def jigéen ñi ak lii di démocratie bu Sénégal Mamadou Lamine Diallo di ko naqarlu ba tey yéene kaay bi xëy di xamal ne jamono ji képp koo xam ne rek jóg nga ngir rek defante ak nguuru ko président Macky Sall bay boo ngay xaar li nga xam ne kon moo war a dal sa kaw yéene kaay bi di Le Quotidien moo ñu koy nettali El Hadji Omar Youm mi nga xam ne kon moo jiite groupe parlementaire Benno muy xam la rek ne dogal bi nga xam ne kon moom la ñu jël lii doonul gan ci li nga xam ne démission bi nga xam ne kon moom lañu wax ne Aminata Touré def na ko le soleil yéen ca lay wax su naataango yi xëy di xamal ne kon da ko war a jël ngir nag di dàq e muy inspection générale d' état bi di bés bi le jour moom nag moo xëy di ca samp laaj na nag Aminata Touré ginnaaw génne gi nga xam ne kon génne nañu ko pencu ndaw réew mi baadu dañu koy fexel ngir rek yóbbu ko ca yoon ak rapport IGE bi su naataango yi moo xëy samp ca laaj ba tey taxawaay bi nga xam ne kon yoon yéenekaay bi moo xëy di xamal rek ne mboolem koo xam ne rek kon jamono ji gis wala ñu dégg la ca bay boo ngay xaar la moo a daal sa kaw l'observateur yéenekaay moo xëy rek moo xëy di xamal rek fekk kii mu fi wutu doon président Abdoulaye Wade lam fa doon jëfe jamono ji mu nga ci ay tànkam yéen kaay bi xëy di xamal ne ñi nga xam ne kon nii lañ leen defoon ni ñu génnee Aminata Touré noonu lañ leen génnee président Macky Sall yéen kaay bi moo xëy di xam rek ne ay jege ñaaleem ñi nga xam ne kon ñoom dañ leen génnoon ci assemblée nationale ba ata nag lenn waralu ko rek lu jëm ci wàllum politique ci atum 2009 la amoon dakaractu.com xëy di ma kon Ousmane di taxaw ngir rek lépp jëm ci wàllu ko yoon ñu mën koo fexe rek ba képp koo xam ne rek woo nañ la la ca wuy ji e moom ak ñuy wax ndaje mu jamono ji ñoo koy am ca ndakaaru ndaje mu dañ cey waxtaan lu jëm ci wàllu ko ñam wi ñuy dundee ci afrique a ñu mën a fexe ba mu gën a a jàppandi yéene kaay bi ma ngi ca fesal nataalum njiitu président Macky Sall ak ñeneen ci ay naataangoom yoo xam ne kon ñoom ñëpp joxante nañ ndaje ci ndakaaru ngir mën a waxtaane waaye lu ni mel ugfm point sn moom delsi na ci leneen loo xam ne kon soxla na mbirum Aminata Touré yéen kaay bi xëy dinu koo toppal dañuy ñu jaar bi xëy fësal nataalu ki njiitu réew président ak Aminata Touré suñu naataango ba tey ñu xëy rek di nettali day anam bi nga xam ne kon moom la def ak pexe yu jël nañu ko ba tekki ndombal tànkam ba tey ugfm point sn googee ñu nekkoon ci la ñuy desandi lu jëm ci accident ba amoon ca six kilo suñu naataango xëy di xamal loxo boobaak léegi fukk ak juróom-ñaari fan ci tey ñoom nag fi mu toll nii bàyyi nañu leen sunu naataango xëy di xamal ne àllarba ji lañ leen doon àtte ca tribunal grande instance ba nekk ca Kaolack ginnaaw bi nga xam ne kon àtte nañ leen ba pare bi xamal rek ne ki nga waaye nag danañ fay àllamaan yoo xam ne kon toll na ñaar fukki junne ak benn ak ñaar téeméer yéenekaay bi xëy di xamal rek ne ginnaaw bi nga xam ne kon procureur doon na sàkku ñu tëj leen kenn ki ñaari at kenn ki juróom benn weer yéenekaay bi moo xëy di xamal rek ne ki xam ne kon moom mu waa tribunal topp ñu loolee ndax ñaari ati kaso yoo xam ne kon dunu ko tëdd moom lañ leen daan su naataango yi xëy di fàttali rek ne lu jëm ci wàllu ko jëyee joojalee lu toll si ñeent fukk ak ñaari doomi aadama ñàkkoon nañ ca seen bakkan keneen ku ñàkkoon bakkanam ba ñu ko faatoon doon Basiru ko doon atte ñaar fukki ati kaso

ba léegi ma ngay weddi li nga xam ne kon moom la ñu gaale ci kawam yéenekaay bi moo xëy dinu ko nettali sunu na ca lool ci wàllu e média point sn moo xëy la rek ne transporteurs yi delluwaat nañ moom na nag lépp ci suuf mbir mi danañ delloo buum ca boy boy ba mbokk yi yéene kayango déglu yëlëg inchaallah UCAB FM li gën a fës ci yéene kay Papa Saer Mbaye